boo xoolee ni dëkk bi bëri ak ndox lool day bëri gàllankoor ci màggal gi te xam na ku ne màggal na mbooloo. mun naa jur gàllankoor yi bare bare bare bare bare parce que benn fekk ne da ngaa yor magasin place boo xam ne da ngaa war a jógee ca Sàncaani wala ca feneen ñëw oto bi nga dugg munta ñëw munta dikk xam nga loolu benn loolu premier loolu premièrement tardement mu ngi noonu waaw maanaam nga am sa nga am sa kër goo xam ne ci biir dëkk bi la nekk. ah mu taa ndox gan yi fu ñuy fu ñuy tëdd fu ñuy lal loolu premier tardement la te marché bi maanaam gis nga nu mel gis nga marché fi mu doon nu mel kenn mënut a pexe ba dem marché bi lépp taataa la ndox mi xasan kun mun ñëw pexe ba jaay client boo léeg bu tawee du am client sax parce que client bu tawee dina am marché bi daa bëri kenn du fa dem client du am oto yi du dem du dikk kenn du jënd da ngay toog ba ngoon doo gis client. te nu ngi mbali maa ngi nee xas ci marché màggal gi mi ngi ñëw ñu ngi koy séenu ci jàmm ak salaam ñaan fekk ko ci jàmm ak salaam waaye ndox mi ci dëkk bii moo nu jaaxal foo tourné ndox maa ngay buuj foo tourné lépp ndox la gis nga ko nii suñu bunt place ndox maa ngi nii fees dellu oto yi taxaw fi yére yoo fi teg ndox mi yëpp yàqte ko foo jaar ndox ma boo demee ndaamaatu nag moom kenn mënu faa dugg ndaamaat lu jëm hôpital ndaamaat ba foofu yëpp suñu kër yaa ngay buuj suñu lal yaa ngay buuj amuñu fu nu mën a dalal suñu gani màggali dimbali leen ci sonn nan tàyyi nan ku ñu mën a dimbali ñu jël ci barke sëñ Touba. comme fu mel ne hôpital ndaamaatu côté yooyu noonu soo xoolee dañoo seen eh, kii bi dañ ko dañ ko bënn bu ko defee xam ne ndox mi day wàcc si yeneen kër yi nga nekk si eh, si si côté boobu noonu nga xam ne foofu ñu ngi xaw a sonn lool lool lool te ñooñu daanuñu am ay inondation te isaan bi li waral loolu maam si benn gi ñu ko mën a ma war autoroute bi tamit maanaam maanaam ni ndox mi dem taaye si ko loo xam ne lépp mënu su ko wax waaye boo awee ci mbedd yi même looy nekk gone même boo même boo amee ay bët rek xam na moom yaa problème parce que mbedd yi Touba yi ak ndox foo jaar man damay jàpp ne sax damay dem ba ne xanaa Touba ab amu fi wala daal yéeme na daal am na loo xam ne mënu su ko wax waaye màggal gi moom buñ ko seetaanee nii parce que boo xoolee nawet mi ngi doog mi ngi doog a démarrer daanaka li ci des bëreetul waaye taw bi dana fekkante ak màggal gi te boobaa taw mujj yi ci biir màggal gi foo jaar ndox mi dajante ak màggal gi te boobaa kon gan ñi foo leen dal te nit ñi mënoo ñàkk baas ci mbedd yi oto yi mënoo ñàkk jaar ci mbedd yi. waa Touba nañ cee def bépp pexe lu mel ni euh, nguur gi war nañ cee taxaw jël ci yëpp matukaay pour fexe balaa màggal gee ñëw lépp luñ ci man ba ndox mi même bu munta du lépp munta jege nu jim ko wàññi waaye suñ ko jimu rek. dana nekk màggal goo xam ne dana metti lool lool lool lool lool. gisuñu dara ñun daal ñoo ngi nii lu ñu war laaj nag bu ñu ñëwee ñu ko ñu joxe ko waaye ñun daal gisuñu dara ñun daal gisuñu dara sëñ Touba daal lañ gis toog di ko xaar. matuwaay moom mooy fexe ba lépp fépp fu am inondation ñu jëm koo jëm koo résoudre balaa balaa balaa màggal gi loolu moom loolu donc mooy mooy solution moom. ndax su ko defoon taay taay mën naa am waaye demee ni ma demee ndax jafe-jafe yi bari na lool waaye nag yore dëkk bi daal dëkk commune askan wépp ñu ngi koy jooy askan wépp maanaam foo jaar rek waa commune lañ koy jëñ lamp benn lamp takkatul benn benn takkatul te ñëpp ngi fay Touba ñëpp a ngi fay xaay bi fi du kenn xamul tool mais kenn gis luñu ci def waa commune daal a yore gàllankoor yëpp ñoo nga xam ne mooy état bi ak ñi nga xam ne mooy commune commune bu Touba nu jiima def bépp pexe fexe ba dëkk bi moom lépp loo xam ne ci ndox la ci biir dëkk bi nu fexe ko yun mën a mangando manga ko sinon buñ deful loolu rek jafe-jafe dana am lépp mënut dañ nag waaye nu fexe def bépp pexe bu mën def rek ba dëkk bi moom ndox mi mën a wàññeeku loolu laal mu amee mënu gënal ko